satisfaction amul benn raison bu taxaway takk der di dàq nit ba koy bëgg a tànc ci miir parce que bu ko laaloon mu fuuti complètement bu ko laaloon mun na cee faatu léegi responsabilité boobu après fan lay mujj yow ñi nga dàq cent personnes la ngeen nekk ñeenti nit wala juróom ci benn oto ngeen dàq la ñuy daw parce que yaa nekk ci dëgg mais loolu bu la doyul des inconscient la li ci parce que yàq na alal ji ñëpp bokk même bu dee gendarme la mais li mu def itam duñ ko classé lu dul ci indiscipline ak maa tey boo xamante ni bii foog naa ni ak action bi ni mu demee ñi ko féete kaw doon ay kilifaam daañu ko jubbanti kenn questionné xale yi li ñuy def ci yaree ko la bokk mais gendarmerie aussi li mu def ci yaree ko la bokk. il faut ñu il ñu nangu loolu. Mhm. te bu wéyee sax Pape lan la mën a jur. waaw euh, lii moom euh, vraiment bu rester impuni moom dafay mel ni après day mel ni nit ñi ñooy war a jox seen bopp justice parce que am na.